Lat Diop di responsable politique bokk ci benn Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall amoon taxawaay bu mat sëkk ci élection présidentielle yi ci diggante Touba ak Mbacké ak ci yeneen gox yi moo doon daje ak responsable yi ko doon teewal ci département bi ngir sant leen soññiwaat leen ñu mën a xaar échéance ci nekk ci sunu kanam jublu ci jàppale président Macky Sall mu mën a am ndam ci taxawaay bi mu taxaw ak naal yi mu sumb ndaje bii nag ñu ne meeku ni chef religieux responsable politique haut conseiller social environnementale député conseil départementaux maanaam mboolem élu ak partenaire politique am yépp ci bépp fànn jeunesse bi groupement de famille teewoon nañu témoignage yépp doon ay kàddu yu rafet jëm ci moom doon sàkku également teewaayam ci département de Mbacké d'une manière permanente ndax jàpp nañu ni Lat Diop daal moo mën a indi solution bi firnde bi suñu sukkandikoo ci ñu fa teewoon nee nañu kat lii président Macky Sall am ku ko saytu xam ni kat am na loxo yu yees yu ci dugg te kenn mën say génne ay yosam waaye nag woote nañ fa également unité jàppoo doon benn ngir mën a àggale mission bi waaye dama bëgg ngeen ànd doon benn yéen ñi ànd ak Lat jóob ngeen ànd doon benn boole seen bopp doon lenn su ko defee dina yombal lool lool lool liggéeyam ci dëkk bi dina yombal ak jàppale ku mu leen war a jàppale wala pour mu mën leen a jàppale nu mu waree dina ko yombal lool mu mën koy def. nii ngeen wane ne jàpp ngeen ko jàpp leen ko te dëggu ci yéen. bu ngeen ko jàppee te dëggu ci yéen du ngeen ko rëcc ba mukk mën naa wat ci yàlla na képp ku ja nekk ci dëgg yàlla dina la fekk xool yi nag nañ ko raxas buñ ko leelee rek te yéeneen te jàmm suñ biir yàlla jàppale ñu kon lat yàlla na la yàlla jàppale ndax loolu bëriwul politiciens yu koy def bi élection yi jàllee mën nañoo tàgg ba saxlawaat nit ñi door ñëwaat waaye kooku di dajalewaat ay nitam de ngir waxtaan ak ñoom ku ko jàppale jàppale nga gor am na nag ñu la bëggoon jàppale waaye xëy na ngor da leen a bàyyi woon feneen ñooña dina ñëw di ñaan yàlla yaakaar ji ngeen am ci président Lat Diop yàlla na ko yàlla dëggal te jàppale leen ci moom mii itam coono bi muy sonn di ko sonn ngir Macky Sall ma de jàpp naa ni bu fekkee Macky Sall am na ñetti nit ñu mel ni moom 90 pour cent yëpp na ko ñu réew mi ndax fii kat li fi def la nga def la nga def géej way ko ëpp tey mosoo cee ñàkk ñàkk jóg di ci def waaye ñu leen xamal nag ni fii moom def nga fi lu fi kenn deful kon nag li nga fi am lu fi kenn amul ba soo yi jàllee ba nëgë ni gars yi dañ ne sérif ci ña ci lay bi kenn gisatu leen kenn déggatu leen kenn gisatu leen téléphone kon nag damaa bëgg mbooloo mi jàpp ci jox ko suñuy tum mu géede ñu nanu bàyyil géej waay na ñëw Touba gii ak Mbacke non non non Guédiawaye dama bëgg mu bokk wax leen ko mu jël engagement fii na ñëw Mbacké gii le département de Mbacké a besoin d'un guide te li ma wax xam na ko il faut un leader. Gumba Amar laa tudd maak Cheikh Pouy xamante nañ ñoo bokk parti bu ñu nekkoon xam na la ma fa man xam na la ma fa def xam na la ma fa liggéey ndax maa ngi moom ñoo ko doon ànd di liggéey mais bis ki tey bàyyi naa parti boobu dugg naa ci Lat Diop. ginnaaw bu ko sëñ boo waxee dafa am nag lu du ma gën a motiver pour ma ñëw si yow Baye Maguette Diakhaté mi day sama mag yor sama rak sama mag teg ci ma gis ko mu bàyyi léppam ànd ak yow woo na ma téléphone paas ma la ñuy wax ba téléphone bi fay mu am yéene. joo xam ne dafa bëgg man ak yow ñu ànd mu ko doon dox di ma ko wax xañ na yàlla dogalu ko woon ba tey la ko yàlla dogal. moom mi di Lat Diop directeur général yor wàllu coopération investissement extérieur dellu si waat na si solos bis bi. waaw solos bis bi mooy euh, ñëw fii tey xanaa pour euh, remercier ñi nga xamante ne àndoon nañu ci campagne bi pour sant leen gërëm leen ci seen taxawaay waaye ndokkal leen ci ni nga xamante ni jàppale nañ ko président de la république Macky Sall. donc dafay jaaru ay nit bu ñu bu leen àndee ñu jóg xeex ba yàlla may ñu ndam ñu wootewaat dajaloo euh, feddali kóllëre waaye aussi sant yàlla donc loolu moo waral bés bi euh, donc euh, te ñu xam ni aussi Touba ak Mbacké dama fee nekk am fi ay nit ay mu doon mbooloo moo xamante ne aussi fas yéene wu ma leen sànni ci lépp lu xam loo xamante ni day ñëw ëllëg ci politique fii ci Sénégal. waaye nag gis nañu ni assistance bu amoon maanaa la ndax la fa teewoon si ay kilifa kañ la Diop moom nag nee na bett ko ndax fi mu teg tànk mooy dëgg. waaw xanaa li ma ciy yëg rek mooy dëgg parce que mm, li ma ci yëg rek mooy dëgg moom euh, ni ko si Abdou Lahad Mbacké doon waxee rek nga nga wéet ci ak nga bañ ci wéet nga war a yemale ñun politique bi ñuy def nii ci dëgg lañ ko teg. Euh, donc jubluwuñu si nax nit ñi wala wër-wërloog nit ñi euh, ci dëgg rek lañ ko teg donc nit ñi aussi euh, ànd nañoo ak seen xel bu ñu gisee loo xam ne dëgg la bu ñu gisee loo xam ne yaakaar nañ ci buñ ci buñ ko toppee am ci dañ koy topp donc loolu ñu si woo ñëpp di ci di ci di ci di ci woo bépp responsable fii ci Touba ñu ànd continuer liggéey bi jàppale président de la République muy opposition muy ak ku mu mën a doon société civile ak lépp ñu ngi leen di woo ne leen président de la la fi yàlla teg nañ ko jàppale ndamam mooy ndamu Sénégal te ndamu Sénégal mooy sunu ndam ñun ñëpp. ndax Lat Diop dafa war a dellu si waat si département bi ba faaw ngir jàppale njiite réew mi si lu nekk si sunu kanam lii la si tontu. waaw mais mosuma fi jóg man maa ngi fi <laughs> donc euh, maa ngi fi man gëñ xanaa ñëwaat ci yeneen anam la ñuy wax waaye ñëw bi moom maa ngi fi ba pare te fas yéene moo fee jóg. loolu gañ moom na seen xel dal ci loolu. moom mii di directeur général bi yor wàllu coopération investissement extérieur gis nañu ni depuis lu tolloog juróom-ñeenti weer mi ngi woon ci Touba doon liggéey ak groupement de femmes yi ak ndaw yi décroché également ñenn ñu jóge ci yeneen parti mais également digganteem ak kilifa diine yi taxoon loolu moom nag gis ni liggéey bi doon ko wéyal su ca pandaw lañ jël nañu cadeau jébbal ko ko mu doon lu mu gën a bëgg ci àddunaam di Serigne Saliou Mbacké sëriñam thank you